asalaamaaleykum mbokk internet Sénégal 7 saa su nekk ñuy ànd ak yéen mbégte contentement ak fierté waaye saa su nekk ñuy ànd ak yéen ci bëgg ngeen ñu bëgg ak topp ngeen ñuy topp fii ci émission Diel Diel yi di émission bu mag bi nga xamante ne nee naa la jéeg-jéeg njagamaar jéeg ji ñëpp dañ ñuy seetaan ba tax na rawatina sama yaay laa ci àndal saa su nekk sama yaay rama docteuru jéeg ji mu ñuy béggal di nuyu képp koo xamante ne nii rek yaa ñuy bàyyi xel di ñu seetaan di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di nuyu ñi nga xamante ne ñoom la caabi féete ginnaaw nag di sargal ñi nga xamante ni nii ña nga tëdd ca lalu hôpitaux yi di leen seet di leen wax massa ñi nga di nuyu ñi nga xamante ne tamit ñi ngi ci biir kër gi kër yi di wéyaale seen i jàngoro ñu ngi leen di massaw bu baax a baax a baax ba tax na rek dañuy ànd ak yéen daal di wéyandik yéen ci émission bu mag bi la di émission jël jëli fa laay duggee rek nuyu sama yaay Adja Kiné Diouf Diaga yaayu Wally Seck sama yaay jooju nga xamante ne tubaarkàll la nee naa la moo ma bëgg waaye nag man maa ko raw yaay saa su nekk rek dama lay bëggee di la nuyu sama yaay jooju nga xamante ne doxul ci lu dul social doxul ci li nga xamante ni moom mooy diine doxul ci li nga xamante ni ci li muy dox lépp rek tubaarkàlla macha allah dafa dëppoog li nga xamante ni mooy jafe réew mi mooy li nga xamante ni moom mooy social di ko def ci jigéen ñi di ko def ci mag ñi di ko def ci ndaw yi waaye nag lépp mu koy def ci sutura di ko def ci secret yal na la yàlla fay Diouf yal na la yàlla fay xeet ji mu rëy ma des ca dex ba ca ndar noonu lañ koy noonu noonu lañ koy dakkantale sama yaay ji Mama ne juuf jaaga ah doom day wuri ba ji yow kenn du yow maa ngi maa ngi lay ziar di la tatagal ndax bëgg ku nekk rek yëgu koy fay yaa ma bëgg waaye maa la raw maa la bëgg waaye xam naa ne yaa ma raw ma lay ziar bu baax a baax a baax di ziar képp koo xamante ne nii da ngay bëggee Ajaratu Kiné Diouf jaaga maa ngi lay ziar di la bëggee di jox kàddu gi sama yaay Rama docteur jeeg ji mu nuyoo ñi nga xamante ni moom moo ñu setaan ñuy mbokk internet Sénégal set yaay booy nuyu naa la di la ziar bu baax. waaw euh, delloo ziar. maa baax a baax. Mhm. di la ziar waaye di la jox sa wàccuwaay. dëgg la di nuyu mbokk internetu Sénégal sept maa ngi leen di nuyu di leen ziar Ramatoulaye docteur Diegui seen conseillère matrimonial. Mhm. macha allah ñuy def émission yu neex yu mucc ci ayib. nuyu naa leen yéen ñëpp ziar naa leen di leen baal àq te di leen baal waaye dangaa dugg fu neex macha allah. Mhm. ki ne Diouf Diaga. wallaay. péri Papa Thione maa la ko wax. yaayu waale. ku baax. ku baax barki Seydina mu social maa la ko wax. ku jàpp njàmbur. ku ragal yàlla. tranquille ku ragal yàlla. Mhm. bëgg Seydina Muhammad. lay nooyee kese. moo ko moo ko teree ziar. barke Mouhamed macha allah. Mm. ñu ngi baax di la ziar ñëpp baalu ñëpp ak di leen ne émission bu neex tey bu nar a neex. bu nar a neex tey Rama Rama. nañu nañu jël bi rek fay di noter. tey bind. te xam ne Rama docteuru jeeg ja woon de retour. <laughs> damaa bëgg mu xam loolu de. dañuy la fa woon gor su baax day delloo la woon fa woon. waaye dama sama yaay jooju nga nuyu léegi. nee naa la am yaay joo xam ne dalay xelal di la digal. Mhm. naan la jàppal lii naan la bàyyi lii. Mhm. yaay joo xamante ne mësta dem nat mësta dem tuur mësta dem ci mbootaayu diri yanke rawatina bu suufi yanke comme ni ko papa John waxee daal di koy gërëm ba làkk ji wuy ji suñu borom. Mhm. suñu yaay ji nga xam ne bu la gisee dala naan. fonkal sa liggéey dala naan jàppal sa liggéey dala naan waroo def erreur ndax àdduna ñoo lay seetaan mhm. dala naan jëlal yàlla suñu borom doyloo ko di kennal yàlla di wéetal yàlla mhm. kon ko kenn amul fayam sama yaay ki ne Juuf jaagal li may wax yaa ma ko gën a xam yal na yàlla guddal sa fan yal na la fi yàlla bàyyi ba nga fekke lépp njaboot gi yal na la fi yàlla bàyyi gën laa dëgëral gën laa kàttanal ci ba Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam mi nga xam ne moom nga bëgg Rama euh, dañuy xuus rek ci waxtaan wi defe na mhm. tey nag thème bu rëy la ñu am nee naa la rama docteur yu jeeg jawoon de retour mm-hmm. <laughs> sama yaay ji ndax nee naa la taximaan ak docteur bu ñu doon nettali réew mi tas dëgg la waaye nee naa la docteur mm-hmm. moo rawati ndax bu ne lay tiim bu ne lay gis sama yaay nag tubaarkàlla nekk fi tey lu ne lay dégg mm, kon jeex na <laughs> lu ne lay gis lu ne lay dégg yaay booy tey ñuy dugg ci fu am solo mm-hmm. ndax nee naa la ngóore góor ñi yal nañ ci yàlla musal te ngeen jéggal ñu ci kàddu yi bu baax nee naa la saa suñuy wax boroom xel yiy déglu la ñuy waxal ndax nee naa la bu wax ju jubee yàlla la moo koy dogal waaye lu dëng ci ñun lay doon te nit matul dañoo bëgg nag bu ñuy wax ak yéen ngeen am dégg-dégg yaay booy tey ci waxtaan wi ñuy dugg mooy góor ñi nga xamante ni dañuy mballu fu ñu toll dañuy foye seeni awra ba daanu mm-hmm. ñu ne naam ni mu amee ci góor ñi noonu la amee ci jigéen ñi. loolu de lan wax waaye sama yaay Rama docteuru jéeg gi tey la koy décortiquer. décortiquer ko tas ko wax li nekk ci biir lépp ndax nee naa la yaayu ngóor a jafe na léegi ci réew mi lool. ndax góor ñi nga xamante ni nii mbaloo leen gën ak sëy seeni jabar mballu mm-hmm. moo leen gën ak tëdd ak seen jabar dem nañ ba habitude boobu sax moom la ñu tàmm te moom la ñu gën a bëgg lii mooy yaay waxtaan wi tey. dafay gën a neex. Mm-hmm. ndax ki ma ci waxtaanal. Mm-hmm. tey macha allah dañoo tim tem bu rëy. Mm. tem boo xam ne damaa bëgg ñu dégloo ñu xel te bañ ñoo dégloo xol. Mm. fu ko waay féetale rek nag fala. kese. fu ko waay féetale rek fala. waxtaan ak yeete rek moo ñu tax a jóg. waaw kay. ak borom xel yi. ak boroom xel yi. Mm-hmm. merci ndax léeg-léeg nga def tam nit gis ci boppam. dëgg la wax ca lu ko neex. wala nit gis ci boppam daan li tax mu wax lii xëy na da koo xam. waaw. da ni ne taximaan ak docteur. Mm-hmm. day gis lu ne waaye day dégg lu ne. dëgg la bis bu yàlla sàkk ma gis lu ne waaye bis bu yàlla sàkk ma dégg lu ne. Mm-hmm. ci biir nopp bi. dëgg la. képp koo xam ne yàlla dala koo nattoo. ba ko. Mm-hmm. muy mballu. mballu. xale yu góor yi tubaab fa kàll. gis nga teel a xam jigéen. dalay yóbbu ci lu ne. am ñoo xam ne dañuy déedéet euh, dafa am ñoo xam ne dañu koy déparé ci seen kanam day xasan. gis nga kosa kosa bi mu fi xewee. dëgg la xale yu góor yi di riiti. naan ko gis ku ci gis kosa kosa koo ci gis ay poche ay poche tubayam da koo fëq. da koo fëq mu dem ba ci suuf loxo ba day jaar bu ci suuf. muy muy muy boxom. dëgg la boxom googu ñu koy boxom nag day dem ba dañ leen dañu koy tàmm. bay indi mbal. dëgg la dama ne am na ñoo xam dañoo am ndoxum siti di dugal seeni loxo di wokk seen awra. am na ñoo xam waaye bu ñu wokkee seen awra góor pour mu yëg bànneex ci kanam awraam la. Mhm. waa léegi nag yow dangay wokk fii day xasan. Mhm. waa loo ñëwee ba ca ba la. ba ca bopp ba di baram baram googu nag mooy indi mballu gi. wala ngay jël sa baaraam di ko ca bës. waa di ko ca bës. Mhm. ak di di di di tàpp tàppal. waa booy tàpp tàppal nag. ba leneen fekk la ci ba nga yëg ci sa bopp am ci plaisir boo xamante ni si mosoo ko caa am da ngay laax ko di ko def day bari ñoo xamante ni si dama ceena dañu may woo mm-hmm. di waxtaan ak man ci loolu mm-hmm. may waxtaan ak ñoom ci loolu pour ñu dindi ñu bàyyi ko mm-hmm. mais dafa am loo xam boo ci accroé pour nga dindi ko du yomb day jafe am na ci ñu bari ñoo xamante ni si dinaa ñëw ci liy tax ñu bàyyi ko li tax ñu bàyyi ko dinaa ci ñëw. ngay ab jullit. dëgg la di ko def. di ko def ba pare yaay dañoo war a toj yeex bi ba mu ba mu ba mu tasaaroo. dinaa ko tas ndax am na xale yoo xamante ne xamuñu luy mballu te toll nañ ci. di ko fowe te toll nañ ci di ko fowe. xale buy doog a dugg ci ci ci ci ci ci. âge de puberté waaw kay xale yu ndaw yi rek a koy def. tëdd ñoom kese. góor dafa yëg boppam dafa am foo xamante ne si boo fa yeggee tuuti rek da ngay commencé yëg sa bopp. boole xale yi téléphone yi téléphone yi lu ne ci léegi bu fekkente ni si yow da ngaa yor sa téléphone seen kër am na wifi kër goo dugg léegi am na fi nga nekk ci sam néeg yow doom dugg foo xamante ni si waroo faa dugg waa léegi yow amoo jigéen amoo kenn ragal ngaa dem ca jigéen ña dangay fawe sa bopp ba éjaculer léegi nag loolu day tax sax ngay am éjaculation précoce ndax dangay ngay teel a mballu mm. teel a xam lan mooy bànneex mm-hmm. bu jëkk góor daan na am soxna mm-hmm. daan na dem ba toll ci soxna ba am soxna du xam jigéen mm-hmm. waaye léegi xale yu tuuti parce que téléphone yi ci la ñuy fo. di ci fo rama doguma la dañuy fo ci téléphone yi booleeg seeni moroomi góor. Mhm. di ko waxtaane ak ñoom di leen ci dugal. ba pare seeni moroomu góor sax dañ koy defante ak ñoom. merci beaucoup. ku ci nekk naan sa moroom te jàppal ma ma def. merci ñu koy fowe rama dëkk bi moo toj nañu xamante nag dëgg te yàlla rek tax am na ci koo xamante ni si daf mhm. may woo day wax ba ba ba ba bay jooy ma ne ko xam nga lan la mhm. mu ne am ma ne kon wax naa la fi ngay jaar nee naa la defal nangam ak nangam ak nangam. Mm. ndax nga ba ko. dëgg la waaye bés bu yàlla sàkk nga may bëgg a rey mënuma koo ba mënuma ko comme mënoo koo bax nga continuer ci. te moom moo la koy wax ni mënu koo bàyyi. wallaahi azim. Mm-hmm. te loolu li mu leen di indil bu ñu demee ba toll ci jël soxna. Mm-hmm. bu ñu jëlee seen soxna. te mm-hmm. indi éjaculation précoce mball bu bari day delloo awra. na leer mballu bu bari. day delloo awra. lu tax muy delloo awra yaay. ah yow chaque jour yaa ngi topp ci sa awra rek. chaque jour chaque jour chaque jour. Mhm. yow desutu saabu amatul seen kër. desutu saabu. <laughs> ak saabu bi ba mu xëpp. waaw desutu saabu amatul seen kër yi. moom la ñuy mballoo xale boo dugg ci ci ci kër këram. Mhm. desutu saaboo nga fa moom lañuy jël moom lañuy ñuy mhm. xale yi desutu saabu diwlin. diwlin bi diwlin bii parce que am na ci xale boo xamante ne si mësama woo nee na ma ci diwlin laa daan jël fian bi. xale yi dañ koy jënd. te duñu am soxna dëgg la dem di di di di di lubrifié wu di lubrifié wu ba yëg seen bopp xoola karité mante bi mi ngi Ceres Mbay dàgga gis nga karité mante bi xale dañ koy jënd ci yow koy jaay ngir ngir ngir ngir jigéen ñi mm. waaye dañu koy jënd si xale yi dañ koy jënd buñ ko jëndul ci man ne dañ koy jënd feneen mm-hmm. saf na mant te dafa niin di ko jël di ko di ko di ko mballoo waaw dégg nga léegi nag bu fekkente ni si xale yi tàmm nañu loolu tàmm loolu dañuy dem ba bu ñu amee soxna seen soxna lu mu leen mën a defal ci bànneex mhm. lee da leen koy gënal dëgg la fan yee dafa am benn daam bu ma woo mhm. ni ma carrément dama rama dama bëgg ngeen waxtaan ci loolu mhm. wallahi rawal dama bëgg ngeen waxtaan ci loolu ndax damaa am sama jëkkër ba am ak moom ak njaboot mais dama kaa bett muy mballu waaw am na ñu bari ñu koy góor ñu bari ñu koy def ak moom mais dangay gis góor ñi léegi am jabar continuer di mbal. dañuy yërlu seeni jabar sax rama ba mbax ba buñ ko yërloo xool bu dee nelaw na ñu ne ci seen awra di mballu waaye te nga tëdd ak jeeg bu ne faat nag rama lii feebar la wala xel mu dem la wala ay rab la parce que loolu day gën a neex ci ñoom doy na waar nee naa la loolu day gën a neex ci ñoom day gën a day gën a neex ci ñoom mais lan moo tax ñu jël habitude boobu mu gën a neex ci ñoom ko séq ak seen jabar déggoo li ma la wax. Mhm. looy defal sa bopp. li naan picc ba fa mu fa mu woo. yaa koy laal yaa koy laal. des fois ngay am jigéen joo xamante ni si. Mhm. xëy na xëy na. Mhm. ndax am na sax jigéen ñoo xam dañ leen satisfaire bu baax a baax a baax. ndax man xale wax naa ci ak moom mu ne ma carrément man am naa amoon naa soxna. mais sama soxna day def bu ma rombee sax man sama xel day nekk ci loolu. day nekk ci mballu day nekk ci loolu damay damay day nekk sama xel day nekk ci soxnaam damay dem sëy moom mais bu paree bu duggee ci toilette di defar ak yooyu man damay profité man tamit di mballu waa xanaa daa da xanaa daf koy tàmm daf koo tàmm ni mu nekkee ci góor noonu la nekkee ci jigéen foofu laa bëggoon a dugg sama yaay ndax nee naa la ni góor di mballoo nee na noonu la jigéen di mballoo waaye yaay jigéen lu muy mballu ba ba ba ba góor dootu ko dootu ko saf jigéen jigéen moo indi giwil jigéen muy mballu ba maanaam góor dootul bëgg góor moo indi gwin waa góor am na ci ñoo xam ne du ñu ànd ak jigéen ak jigéen du ñu am faru jigéen duñu du ñu xamuñu lool waaye dañuy mballu ñoom jigéen ñi waa léegi yaay góor sax buy mballu dina am fu mu jàpp waa jigéen moom buy mballu fu muy téye ah, fu muy téye xanaa fa mu yëgee bànneex fa lay mbal fa mu yëgee bànneex lay jël karité gii rek mbaa mu jël libre fiant bi rek def ci ba mu tooy rek mu jël loxoom allahu akbar boole gi ko seetaan am na ci ñoo xamante ni si dañ koy seetaan. dañuy mballu ba pare di ko filmer dañu déedéet dañuy seetaan ci téléphone yi ji win yi nga xamante ni si noonu la ñuy def. Hmm. gi bu ko defee ñoom dañu dañu dañ koy seetaan foofu. parce que yàgg na mu mës ci waxtaan jeeg jeeg bu ne faaj. Hmm. koo xamante ni si am na ñaata ñeenti jëkkër xaw ma. Hmm. tàkkali ko ak moom. bi ma ko xee bi ñuy waxtaan ci loolu dañu moom soxlaatul jëkkër. léegi boppam doy na ko sëkk moom dina dina satisfaire boppam pare na ci mhm. bu ñu waxtaanee ba dugg ci affaire yu boobu sax dañu moom du sëkk ak jigéen seexlu na ko mais moom boppam mhm. ci laa xamee ni jigéen da koy def. jigéen da koy def dégg naa sax léegi dégg naa sax yaay léegi dafa am ay statut yoo xamante ne dañ koy jaay. Mhm. dégg naa statut bi moom wax rek la dul def. dëgg la wax rek la dul def. dégg naa yónnee vidéo. mi ngi noonu bu mel noonu. dégg naa estati bi wax rek la dul def waaye lépp loo xamante ni. booba maa nga ca TV maa ngi leen di nuyu bu baax. Mhm. booba maa nga ca sa TV maa ngi koy wan sama collègue yi. Mhm. naan leen kii daf maa yónnee lii daan ni ma dafa bëgg ñu waxtaan ci. wax mooy indi wax indi wax estati la dégg naa boo xamante ni si xees pecc dégg naa xees pecc yor ay awraam ak léppam dégg naa boo ko boo ko boo ajee mu aj mu aj boo ajee ba pare dégg naa loo ko def mu fayu moom daal wax la dul wax wax la dul def loo ko def mu fayu waaw waaw waa léegi waa léegi ñun nag ban ban monde lañ nekk ak fan lañ jëm ba pare góor guy mballu yaakaar nga ni bu dee góor nga ngay mballu di mballu di nga dem ba sa jabar li mu soxla dootoo ko ko jox. Mhm. te di nga dem ba. Ah, yow yow. Euh, ah, eh, yow euh, euh, rapport distance moo lay gënal. Mhm. rapport sexuel. Mhm. maanaam distance. di xool dara ci vidéo. wala ngay woote fu sori. wala ngay def mooy dem ba. merci. surtout foofu. te ñuy tukki nag. surtout foofu foofu dama fa bëgg dugg bu baax a baax a baax. gis nga jigéen ñi ñi ngi def defloo seen jëkkër yi loo xam. wallaay di nga ko dinañ ko réccu ëllëg ci sa biir dinañ muy appel vidéo yi. Mm-hmm. ngay def ak sa jëkkër appel vidéo summee ko ba set baa nga naan ko lii de laa lay xaare nàngam nangam jàppa sa nangam. defal lii di ko wan sa awra. di ko mm. wan sa sexe moom aussi mu jàpp awra. ba écharpe nekk ba yëg boppam. ba yëg boppam. Mm-hmm. yaa ngi dugal sa bopp ci kàmb goo xam ne li naan tax. Mm-hmm. Eh, eh, eh, xob dugal ngelaw dugal na ko ci pax waaye génnewu ko fa mhm. wallahi yaa ngi dugal sa bopp ci kàmb koo xam ne dara du la fa mën a génne mhm. ndax sa jëkkër day dem ba day tàmm loola ba bu la gisee ak bu la gisul la yamale mhm. bu la gisee ak bu la gisul la yamale dëgg la arrêté leen appel vidéo yi ngeen di def ak seeni jëkkër summeeku ba set di leen wan seeni sex góor góor kese la wan ko sa ween nañ ma baal ci kàddu gi wan ko sa awra lu ne nga def ko sëgg wëlbatiku fii wang jootu lu ne ngeen def ko sa jëkkër yëg boppam góor góor kese la li nga mm. xamante ni si sidditam jug na ba pare mm. faawul alaa kuli àll day génn mm. léegi lu mu koy génnee te obliger di mballu mhm. di mballu waa ba pare loolu sax sama yaay ba mu tuuru ba mu tuuru bu fekkente ni tey jii mhm. maara day misi daa dajeeg jigéen ju la gën a jone mhm. wala mu dajeeg jigéen ju la gën a saay-saay xamee ko ci internet bi mu koy def ak moom yow miy jabar doo ko perte danga koy perte nee nañ sax nga waxanteeg sa jëkkër nag wàññiwul dara ci jëkkër ju tukki waaye ah. nga jël sa awra mu jël awraam ku nekk jël sa loxo teg ci sa awra bopp. ngeen di fowante di fowante di fowante ci vidéo ba ku nekk yëg sa bopp loolu ëpp na. ëpp na day dem ba moom bu ma góor a ñibbisi sax toog da koy gënal ndax danaa la ma fay fekk ñi ngi ma koy jox ci téléphone. Hmm. te dafa dem ba dañuy habitué woo ci loolu. merci beaucoup am na xale yu góor yoo xamante ni si sax dañuy dem ba ku ñu mën a nekkal ci àdduna. Mm-hmm. boo leen du defar noonu dañ lay bàyyi parce que seen nit soxna dañ leen ko tàmbal. Mm-hmm. wala coro li nekkoon fii. ñoom ñu nekk Europe tàmmal na leen ko. Mm. léegi dañuy dem ba gis nga daba war nañu xoolaat bu baax suñu bopp. wallaay capture yeeg vidéo yi ngay gis yëpp de loolu ko indi. loolu dong ko ci gis mu def ak waayam vidéo ñu siiwal ko ci internet bi wala ñu génne ko. loolu dong awraam la téye jàkkaarloog yow ngay wax mu téye. kese ngay wax mu mm-hmm. loolu nag mooy mballu. Mm-hmm. leneen du mballu loolu mooy mbal boo ko xesee ba tàmm jeex na. Mm-hmm. yow daaneel nga sa bopp dugg ci sa toilette. sangu ba set wecc. xalaat solaat sa yére. yaa tooñ sa bopp yaa tóor sa bopp yaa jooy sa bopp yaa toog. yaa sangu. yaa daane sa bopp waaw boo lëgee xelam bu nekkaatee ci jigéen rek mu defaat ko léegi day dem nag bu daf koy tànn. Mm-hmm. tubaab it dañu may baal waaye xamuñu sax fu ñu ñu jëmee. dëgg la nee naa téléphone yi ñun dañoo waroon a ba ca tuusee rek. Mm-hmm. dañoo waroon a bàyyi ca tuusee rek ñuy bës. waaye bañ ñu fa indilee yii ba tey. Mm-hmm. mënatuñoo yar suñu njaboot. Mm-hmm. suñuy càmmiñ ñoo ngi ci biir. Mm-hmm. suñuy doom ñoo ngi ci biir. Mm-hmm. suñuy jëkkër mi ngi ci biir ñëpp a ngi ci biir. yaay booy nag tey ji eh, mballu fi mu ëppee. laa bëgg ñu waxtaan ci bu baax a baax a baax. ndax euh, am na ku ne ma mballu ci prison yi la ëppee. ndax da ngay gis koo xamante ni dañ la faa tëj nga toll ci âge boo xamante ni âge yu la. Mhm. ñu tëj la fa yaa xam fukki at. Mhm. wala ñu tëj la fa yaa xam huit ans jàpp six ans. Mhm. da ngay dem ba benn moment da ngay soxla sa bopp. li lay obli li ngay obligé def mooy nga dugg ci biir douche di mballu pour yëg sa bopp. mu doon loo xamante ni loolu xaw ma nan lañ koy attee mhm. parce que góor day toll foo xam ne góor rek lay doon day tollu foo xam ne day yéeg boppam day toll foo xam ni day metti nag mhm. xaw ma nag ba xam ban solution lañ ciy jël mhm. dañuy wax ni ba xam sa jabar mën na faa ñëw nga di ko gis une fois par semaine wala de fois par semaine wala nga koy gis benn yoon ci mois bi ah, bu amoon dina baax yaay docteur bi loolu foog nga wax ci. parce que tamit mm-hmm. euh, ñi nga xamante ni ñu ngi ci prison bi ñu di ko def. loolu nan nga leen attee seen cooba di seen coobare def loo ba pare di nga dema dema dem ba gis ci prison ji góor ak góor di ko defante mm-hmm. looloo indi góor jigéen ñi yu bari yu bari nee nañ prison yi la ñuy gé mm-hmm. la ñuy la ñuy jóge di fa génne muy loo xamante ni nii yaay dafa dafa dafa ëpp nag Ah, te loolu xaw ma nan nga ko mën a àttee xaw ma nan nga ko mën a nan nga ko mën a lijjante ñoo mën a tudde ñoo ko mën a tudde loolu xale yu bari ci prison bi di ko defante mhm. ba dañuy dem ñoom it ba prison bi da leen di gënal sax ñu génn gis jigéen wala nga gis ku ne ci prison génn dootoo bëggati gal dootoo bëggati jabar parce que habitude bi nga habitué woo ci biir prison bi moom moo lay gënal mhm. ci biti dëgg la mhm. dëgg la dafa am moo tax képp ku fa nekk yàlla na la fa suñu borom génne amiin képp ku fa nekk yàlla na la fa suñu borom génne ci barke yonent bi. allahumma amiin sallallahu alayhi wa sallam. muy góor di jigéen di mag di ndaw. Mm-hmm. surtout góor ñi. Mm-hmm. parce que góor nee naa la day toll foo xamante ni si moom mënatul téye boppam. Mm-hmm. jigéen jëkkëram dina mën mën na tukki fukki at. mu toog lem di muñ di xaar. mais góor gu ne la mën naa toog fukki at. àndul ak jigéen xelam nekkul ci jigéen wala am mettiwul wala mu mballu mm. nañu ma baal mm-hmm. jafe na jafe na dafa jafe mm-hmm. kon ñi nga xamante ni si caabi da leen a ñu tëj leen ay at lañu mm. fa teg atteeguñu leen xamuñu sax ñaata at la ñu tëdd ñu mm-hmm. metti ci ñoom li nga wax léegi dangaa wax lu am solo bu fekkonte ni si soxna daf fay mën a ñëw sa soxna dafay mën a ñëw nga koy gis une fois par semaine wala sax benn yoon sax ci weer uh-huh. wala par quinze jours uh-huh. di leen ko jàppale uh-huh. ba bu ëllëgee dootuñu xalaat dara mais xam nga ni góor nga tëj ko fukki at mu toog di sentir jigéen di xalaat aussi fa mu doon fa mu doon jaar ak soxnaam wala fa mu doon jaar ak corom te xale yi moom mën naa ne ñoom ñëpp léegi tarkaal la te nee nañ ndox ma doyu fa hygiène ba doyu fa dara doyu fa imaginer mu def ko ci douche yow sa moroom génn bëgg faa jàpp wala mu génn bëgg faa sangu ba set wala leneen ak leneen du ko fa mën xam nga loolu loolu loolu tamit day doy waar waaye yaay dañuy dut suñu baaraam ba tey ci mm-hmm. jigéen ji koy def mm-hmm. surtout jigéen ñooñu nag mm-hmm. jigéen ju koy def jigéen ju koy def moom après am na ñoo xamante ne dañuy dem ba nekk mag waaw koy di ko def du ñu am borom kër merci ak naan sama borom kër nekkatu fi man daal bëggatuma bëggatuma nangam bëggatuma dara mais nag nee nañ jigéen boo tollee ci sëy dangaa war a sëy ku sëyul sëyantu waaw ku sëyul sëyantu te dégg naa ci sam ci ci ci benn waaraatekat mhm. nee képp koo xamante ni si yaa ngi jël sa loxo di fowe sa kanam muy góor muy jigéen mhm. keroog yombal xiyaam sa baaraam yëpp ay awra lay doon na leer mooy màndarga bi sa baaraam yëpp day doon ay awra daaw awra yu bari <laughs> sa baaraam yëpp ay awra lay nekk. ay awra lay nekk. Mm-hmm. moo xam ne gauche ngay jël moo xam ne droite bu ko defee nag yépp doone awra. Mm-hmm. ku la gis xam ne yow mii da doon ballu kon nag bàyyi leen ko ci bi muy teel te tuub. Mm-hmm. ba pare jamono ji fi mu toll tiit dafa jot. dëgg la tuub it dafa jot. waaw ah! ana luy nday mbalu nag. ana luy nday mbal góor gu koy def ba ko te takki soxna. lem a ngi nii nga ni bëgguma lem kaani laa bëgg. kaani laa bëgg. kese. waaw man de am na ci koo xamante ni nee na ma man sama jëkkër chaque jour chaque jour chaque jour du tëdd ak man bu bët set tambaluwul mu ne ma léeg-léeg damay nelaw nelaw la di ko may bët. nee na ma bu ko deful ci kaw lal bi bu jógee dina ko def ci douche bi ndax nee na ma douche bi dafa am euh, porte aluminium boo xamante ni bu nekkee ci douche bi mu ne ma su ma sànnee sama bët dama koy gis mm-hmm. bu ko deful ci kaw lal bi ma nelaw mu yërndu ma ba defa ne nelaw naa mu ne ma te ma de dama koy gis nee na ma dina ko def ci douche bi te mm-hmm. ma ko ko waxee mu ne ma moo attaqué ma mu ne ma te damay mel ni ma war a mel mm-hmm. nee na ma di jigéen joo xamante ni macha allah jeeg boo xamante ni laa dama ne faaj mu ne ma waaye nee na ma mballu moo ko gënal sëq ak man. tàmm na ko nee na ma war a mu sëq ak man sax. nee na ma ba man mu yëg sama bopp nee ma mu jug moom ci boppam dem ci duus bi mballu. Mhm. waaye nee na ma daanu ci sama kaw ak ko egg ci sama kaw ak ko ko rey la yemal. ma ne la faaw mu def ko. Mhm. mu def ko parce que da koo tàmm. Mhm. ne lu mu lu ñu xas ba tàmm la. xanaa nga bañ koo xam. waaye boo ko xasee xam jeex na. li tax may euh, insister nii. dama ni la dafa am xale yoo xamante ne si war naa la ko keroog. Mm-hmm. dañuy jël ay vidéo di la ko yónnee ak mm-hmm. audio. Mm-hmm. daane la gis nga. man daal lii moo ma sonal. chaque jour chaque jour fi ne mënatuma lekk mënatuma naan damaa sax jeex. parce que mënatuma aussi génn. ndax chaque instant sama xel daf ciy dem. may fawe sama bopp waa kooku yàquwul. yaa ngi dégg jooju wax. kooku dafa yàqu ndax ku dem ba mënatoo lekk mënatoo naan. Mm. yow dara safatu la mm. dara bëgg a jëtu la mm-hmm. minute bu ne rek yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi éjaculé minute bu ne yow yaa ngi mballu minute bi ne yaa ngi mballu di daanu di dem di sangu ji di ñëwaat boo tëddaatee tuuti sa xel nekkaat sangu la ba pare am na ñoo xamante ne xamuñu xamuñu buñ buñ mballoo ba pare dañoo war a sangu set bañ sangu set am na ñoo xam ne xamuñu ko buñu mballoo ba pare pare buñ sangu mballoo ba pare xamuñ ni loolu bàkkaara nga ca pare nañ jàll ca leneen talu leer laa lay wax garama bu ñu paree jàll nañ ca leneen xamuñ ne dañoo war sangu set xamuñ ne dañoo war a sangu julli rama dëkk bi ci boppam moom mooy yàqu xale yi léegi seen loxo ci seen awra waaw awra yi ñuy defar nag di ko indi di leen ko jox ñu koy sëye dëgg la te du góor du jigéen mhm. ab awra bu ñu créé rek jox leen ko la mu ànd ak ay vibreur ak yépp dëgg la ñu jël ko di ko sëyee ba ci santi seen boobu ba loolu moo leen di dem ba eh, gënal leen sëyeeg sëyeeg sëyeeg seen nawle te awra yooyu ni mu amee bu góor noonu la amee bu jigéen de am na yoo xam ne ay sexe jigéen la ni mu doone yu góor góor jigéen ñi di ci yëg seen bopp noonu la amee yu jigéen mhm. waa léegi yow boo amee awra boobu ci sa biir nekk nga doon at nga doon jeeg boo xam ne da nga ne soxlaatuma sëy mm-hmm. waaw looy sa dooy sëy dëgg la doy woo dara sëy bi mm-hmm. ndax yow chaque jour li nga xamante ni si moom moo la war mottali yow yaa ngeek moom ci sa biir kër mm-hmm. xanaa nga mbubboo jëkkër ji turu am naa jëkkër waaye fu sa jëkkër génn nga jël awra boobu defaat sa kanam ba tey loolu mballu la kese ndax da ngay ànd ak awra boobu ànd ak awra boobu ba daanu moom. ba yëg sa bopp du yëg mbul ma sa yëg boppam. am yoo xam ne dañ koy branché ci courant danoo sax ñeme. Mm-hmm. ndax yi ñuy yow courant ak ni mu mel nga branché ko ci courant. di ko def ci sa kanam lu mën na ak yi ñuy def pile. di ko mm-hmm. def ci sa kanam. moo tax cancer yu bari waaw. Mm-hmm. góor ñi aussi am na awra yoo xamante ni si awra jigéen la. yow boo ko jëndee euh, teg ko ci ci sa néeg. wala nga jënd vibreur yi. yóbbu ko ci sa néeg. minute bu bu ci sa xel demee. Mhm. heure bu ci sa xel demee. nga jël ko utiliser ko nga ko daal di xëcc sa buntu karaj karaj tëj ñu naan moom de du dem fenn wax dëgg yàlla. day tëdd fekk ma ngay tëdd. fekk la nga nekkee génn dem fenn ko gën. billaahi wallaahi. bëri na ci nag yaa sama doomam. demul fenn. Mhm. utul xarit utul àndandoo. Mhm. parce que doo ut xarit doo ut àndandoo bëggoo ku la seet si. toxoo nag naanoo yaa ngi ga ne bokk bokkaaral mm-hmm. waaye la nga nekkee moo gën ba pare nag yaay yi tamit yaay merci foofu laa bàyyi xel ci doom di vigilant léeg-léeg sa doom tëju di tëju di tëju del xool fii mu tëju lan la fiy def am na koo xamante ne nee na ma man sama doom nee na ma day day day tëju mm-hmm. nee na dafa jékki-jékki rek nee na ñëw ubbi bunt bi def fekk xale bi di caddi caddi mm-hmm. nee na mun a kii est-ce que ay waaye bu ko gisee rek day daw génn yaay nangam wala yaay nii nee na mën ko waaye yow ni ma la fekkee léegi ngay tëbëg bi nee na mu ne ko man mii du man nee na mu commencé ni sama doom dafa am ay rab dama koy utal ay débat débat ak ay ay ñaan ak affaire yooyu xam nga ci loolu lañ gaaw. Mhm. boo gisee sa doom di def lenn doo surveiller wala nga xool lan moo tax muy def lii. danga naan rek naa dem ca maa ba. wala naa ko utal ay kii naka taraba naka. xale bi ba lekk la day mballu. lekk la ba nga set waaw. xale bi day mballu. ci la yaay ji nekkee di topp xale bi di ko déglu di ko bàyyi xel ba xam ne xale bi day mballu te xale bi buy mballu day jël. livre porno yi di ko teg ci kawam. kenn mënatu koo dindi. est-ce que yàlla doo ko mën a soppi. voilà. nee mu jël oowu jigéen moom daal na gis daray jigéen rek. jël ko teg ko ci kawam di mballu. te nee na ma yar naa ko fi ma ko war a yare mm-hmm. nee na ma di ko bàyyi xel. ba pare xale yi tamit rama sa doom bu amee yenn âge téléphone del bañ di fanaanoo même bu dee bu dul téléphone yi sa doom bu amee yenn âge yu waratul fanaan ak yow mm-hmm. yaa pàppa dangay gis koo xamante ni bëgg doom wala bëgg lu neex doomam moo ko ciy dugal kër ga bëri ay néeg mu ne man de bu tëddul ak man du nelaw xaaral ma lalal ko ci suuf xale yi ñoo mag seen ndey yeeg seen bàyyi. Mm-hmm. mais am na ci ñoo xam ne aussi tamit dañuy sëy mais benn néeg la am. waaw ba ci ba ci lool rek bu fekkee da ngay sëy yor benn néeg. jar na sax rama nga utaat beneen néeg su fekkee sa doole tolluwu fa. Mhm. nga xool noo ko organiser. bu dee sa doom day jàng nga bàyyi ba mu jàng. dañuy pattal seen benn bët. wala nga nga nga teel koo defak seen baay balaa xale bi di tëdd. Mhm. nga xool noo ko organiser mais tëdd ak sa doom di sëy sa borom kër wala sa borom kër di sëy ak yow. doom ja di leen bàyyi xel. lu mu tas jar naa doro <laughs> naa doro jar xale de. ah doy na <laughs> barke yonent bi xale yi léegi. dëgg la seen ndey ak leen di njëkk a nelaw. bu fekkee na xale dafa koo lalal ci suuf. Mm-hmm. di xaar naan damay xaar ma nelaw minit bu ne nga yër. Mm-hmm. bàyyam dina toll foo xamante ni si dootu la mën a xaar par force dangay ànd ak moom. boo ànd moom na xale yi patal seen bënn bët moo tax man la jar na <laughs> jar naa doroge bu la leeree ne dangay ànd ak bàyyam nga doroge xale bi te benn néeg nga am. dëgg la de. ah doroge ko. Mm-hmm. mu nelaw. dëgg la nga doog a ànd ak moom. Mm-hmm. waaye xale yii. Mm-hmm. parce que am na ci koo xamante ni si. Mm-hmm. dégg naa da doon wax euh, yaay ji naan maam ji. naan ko sama yaay ak sama papa bu guddee damay dégg sama yaay day dóor sama papa day dóor sama yaay rek. chaque jour da koy dóor. dëgg la chaque guddi dama koy dégg la koy dóor bal ngay dégg lal bi ni mu yëngatoo. kon nga xam ne xale boobu bu xamee tuuti rek. dina xam ne yaayam ak papaam mi macha allah ña dëgg la. kon nañuy sóoraale suñu njaboot. di leen bàyyi xel bu baax di leen bàyyi xel. Mm. doom bu jigéen day leen ko surveiller. wallaay dëgg la sama doom utul xarit utul àndandoo. Mm-hmm. sama doom amul kenn. Mm. sama doom jàng rek lay def wala sama doom sama liggéey rek la nekk. ma nga ca biir kër ga di def lu doy demul fenn fu ma jëm ma nga ca biir kër ga. Mm-hmm. bari na ci xale yoo xamante ni sii dañuy mm-hmm. lalu. dëgg la am na ci xale yoo xamante ni sii dañoo bon. yàlla moo leen koy kiyee mooy xale yooyu nga xamante ni sii. ay nitu kersa lañ. waaw ay nitu kersa lañ. yaay yi da ut dara sax defal ko sa doom pour denc sa doom. Mm. ñooñu moom du ñu génn. waaye xaw arab mais am na xale yoo xamante ne si. Mm. nitu kersa yi da laa bañ. waaw ñooy def musiba de. mais teewul bis bu ñu jekkoo musiba def ko xale kersa yi. mais teewul. Mm-hmm. nga vigilant di xool sa doom. Mm-hmm. des fois nga fekk sa doom ci biir ne nga ne ko yow génnal nga ñëw ci saal bi yow sa néeg ngay toog chaque jour. wala nga ñëw ba ma ko ni ko looy tëdd xëcc dara bi nga tëdd xool. ñëw xoolandoog yow ba pare di xool seen téléphone doom yi. Mm. nañuy xool seen téléphone doon. xale yi di léegi fépp la ñuy côté léegi la ñuy dugg ci whatsapp bi léegi fépp la ñuy côté. dañuy côté lépp discussion sax dañ koy côté. fépp dañ koy côté léegi. Mhm. doo mën a dugg fenn doo am accès ci fenn. Mhm. am na ci xale yoo xamante ne si seen téléphone bu ñu law bu ñu leen woowee yow mi seen ndey mënoo ko décrocher. dañ ko def foofu. Mhm. dañ koy côté pour bañ rek. nga décroché pour wax ak ki ñuy wax. na parce la ba nga maane la dindi. dindi dindi dindi mhm. war nañoo jóg foofu. Mhm. mais papa yi. Mhm. nañu jàppale ci foofu. dëgg la dëgg la Rama. papa yi nañ ñu jàppale ci foofu. Mhm. gis nga lépp lu ñu woy dëgg la. papa yi nday nday kenn la bàyyi bàyyi ñëpp la. sala bëggoon a ñëw papa yi lijjanteetuñ kenn lijjantiwuñ sax seen bopp bay lijjanti doom nday daa la sonn ndaya ah. dee. mais nañuy dimbali jigéen ñi. Mhm. jigéen ñi sonn nañu gis nga doom bu góor bàyyi moo koy moo koy moo koy lii doom bu góor. bàyyi koy lijjanti di jaayam. Mhm. moom moo koy lijjanti. Mhm. bu fekkee baayam teel naa génn àdduna. yow mhm. mii ndijaayam jegeel sa sa jarbaam. Mhm. di waxtaan ak moom di ko delloo si ah sa yaay di jàmbaar la. sa yaay di lii la sa yaay di laa ba pare. di di di ko topp. di ko topp bàyyi naan sama jarbaat la waaye faale wu ma. faale wu ma topp ca xaj. na nañ ma baal ci kàddu. léegi bu ëllëgee. Mhm. doom jooju bu tekkee mën naa law ba tekk la. wallaay dëgg la mën naa law ba tekk keneen ak keneen. Mhm. doomu bàjjan la nag ak doomu nijaay ak sa ay doom. wallaay dëgg la mën naa am tay jii lu ne gaañ ba ñëw jël ci sa njaboot. ndax mhm. teral la ci ba yóbbu la màkk. li duuf ci nag wi lépp xajul ci cin li mhm. dafa mel ni sunu waxtu dañoo dab ndax nee naa la saa su nekk rek yaay booy décortiquer nit ñi du ñu bëgg sax nga bàyyi mhm. ndax euh, li ngay wax fu leer nga koy teg ba tax na nee naa la sunu waxtu daf ñoo dab dama lay bàyyi rek nga daal di tàggatoog mbokk internet yi nga xam ni mhm. ñoo ñu doon seetaan fii ci Sénégal 7 xanaa di sant ñëpp rek di baalu àq ñëpp di wax ni chaque jour rek comme yàlla dañu fee <laughs> kii pour ñuy wax li may uh-huh. tëjee chaque jour. Uh-huh. ñoo ngi jéggalu ñëpp di baal ñëpp ak waaye képp koo xamante ni si da nekkoon ci mballu na ko baax gis nga xale yi daba. Uh-huh. dañuy dem jëndi lubrifiant. fian bi. koo gis sa doom yor lii rek nangul. tapes koo gis sa doom yor lii. nangul. gisoon naa ci xale boo xamante ni si yàlla xam na ne yor na ko te jigéen la wallaahi azim ma laaj ko ko. mu naan ma moo lii dey dara lii de lu ñu diw ci tuñ la lii de lu ñu kii la ba mu xamoon lan la ci beneen façon la nekkoon wala dañ koy diw ci sa ween day tax sa ween day da ngay am ween yu rafet yu nàngam ndakata pour ballu la ndekete yoo li wan leen ko mhm. Librefient képp ku gis sa doom yorati ko wala kaate yi amant na nga ko xool pour jeeg gi la dañ lay nax naan la lippaleer la de nangul xoolal ci saag bi vérifier vigilant leen di. xool seen doom dee leen xool seen. saako yi ndaw yi nga xamante ni si amagoo leen soxna tey mm-hmm. mballu arrêté leen mballu bi ngir yàlla ak yonent bi pour bu ëllëgee bu ngeen amee soxna. jariñ ko ah, mu xool leen mu xool leen ñun la. laa I don't I don't care <laughs> waaye. kii rek dem di afrodisiaque <laughs> maa la wax loolu de gis ngeen tey jii lii lañ leen indiloon ci sama yaay Rama docteur Jeeg ji wan na nag façon bi nga xam ne moom la xale yi di jël di ko utiliser mhm. ngeen xool ko bu baax te ngeen bàyyi ko xel sa doom bu yor luy niin wala luy ritax bu rek lépp a lèvre sax xale yi mën nañ cee mbalu yàlla na ma yàlla baal te mhm. jéggal ma ci kàddu yi muy góor di jigéen comme que ci ñaar camp yëpp la ci góor ki la ak ku jigéen ki day leen leen bàyyi xel jar mhm. bu xale yi ñu baax a baax a baax foofu rek laay tëjee nuyuwaat sama yaay ajaratu Kiné Diouf jaaga ba tey maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax yaay Waly Seck yaay Aline Seck yaay ay Aïssa Rasoul waaye nag nee naa la yaayu képp koo xamante ne nii rek bëgg nga lu baax tey jullit te tey aw ci yoonu siraatal mustaqim sama yaay bëgg na laa jur euh, jaaga yal na la yàlla defal jàmm may la wér ak gudd fan defal la tawféex ba tey rek nee naa la euh, euh, waaxel comme berndeel rama mhm. duma duma duma émission mukk di bàyyi ndax nee naa la fii diwaanu Serigne Saliou la kër Serigne Saliou la ndax lépp loo xamante ni dañ koy def mu laal ki nga xam ne mooy Serigne Saliou mhm. suñu yaakaar tey ak ëllëg borom njurul ak borom njàppandal mi nga xamante ne tubaarkalla moo fi bàyyi mhm. daaraam yi Serigne Saliou gisatuñ ko waaye ko nag dañuy jàpp ci daaraam yi jàpp ci dongaam yi mhm. di leen teral ba tax na xelkom berndeel day dem xelkom le la mhm. le 22 le le 20 la 22 le 23 le 24 décembre fële mhm. ca xelkom ñuy toggal nag nee naa la fukki daara ñaar fukki daara la ñuy toggal ren di ko def 92 mana euh, moom la ñuy def képp koo xamante ni nii rek bëgg ngaa jokk ci liggéey bi rek nee naa la wooteel ci 78 360 31 31 78 360 31 31 lépp ci dongay Serigne Saliou la jëm mhm. woote baa ngoog yëgle baa ngoog képp ku ci bëgg a def sa ñaq wala nga def ci sa doole wala nga def ci sa alal woote baa ngi noonu lépp ci xel kom lañ ko jëmee ca daara jox ko dongo yi mhm. yëgle baa ngoogu sama yaay ñuy tàggatook yéen ak tàggatoo bu dul jeex yaay yaay sama doom sama xarit Lamine Canada Lamine Canada Lamine Canada maa ngi lay nuyu bu baax a baax borom borom boroom jëppal maa ngi lay nuyu Lamine Gueye di sama xarit di sama lépp bu baax a baax <laughs> la jërë ngeen jëf beneen émission jël jël yi ak beneen thème man ak sama yaay Rama docteur u jéeg ji Lamine Gueye fóon nañ la borom Canada <laughs>